Les caméras de surveillance sont visibles à Thiès, notamment au niveau de certains ronds-points. Une nouveauté dans la cité du rail, mais bien appréciée. Ces, caméras de surveillance, euh, je les vois un peu partout, implantées dans les grandes agglomérations et les points de convergence euh, humaine. Les caméras de surveillance nous montrent les voleurs, les agresseurs et autres. C'est une bonne initiative car auparavant, quand on dormait, on n'avait pas l'esprit tranquille et ils peuvent même te tuer. Les malfaiteurs ne sont pas fous parce qu'ils savent qu'à la prison, il y a le calvaire là-bas. La gagne, en plus, caméra de surveillance rime bien avec force de l'ordre. Ton chargé a assuré la sécurité publique, telle que la police et la gendarmerie, même l'armée. Euh, la caméra de surveillance peut être capté par la caméra de surveillance, essentielle pour le public. La sécurité des personnes et des biens n'a pas de prix. Alors, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire d'augmenter les caméras de surveillance à Thiès ci yu bari fi ci Thiès dinañu fa gis caméra de surveillance ci rond-point lolu nak di lu bees ci Thiès askan wi tamit diko rafetlu. waaw caméra de surveillance yi man gis naa ko ci dëkk bi comme nee la man Thiès wa euh, d'adoption la yàgg naa fi mais caméra de surveillance amu fi woon xëy na dëkk bi effectivement agression amoon nan nak mais tay ji ni mu mel ak désordre bi am ci dëkk bi amul won liko waral aussi population bi démographiquement dañoo yokku quartier yokku na bu yokko insécurité mok lolu ñoo and donc autorité yi ñi ngi xalaat sécurité bi ndax ku dem ba gis ñuy def ay caméra de surveillance un peu partout dans la ville loolu day wone ne seen xel ngi ci mais du tere aussi toujours ñu yëkkati seen tànk tubéy ni ko olof di waxee gën a góorgóorlu def ay pexe pour sécurité bi ñu gën cee teg loxo. feeñal woyu yi fii taxawaaloo agresseurs yeeg ñu bon ni daal. buñ te daan duñu nelaw ndax wax dëgg yàlla tëdd yi ni di la daj di jël sa alal di la rey. mbaa ngi di la gaañ mitti na torop ñu ko def moom def nañ lu baax a baax a baax a baax dofuñu dofuñu jinne jàpp leen comme que kay ku ci génn dinañ la gis kay foo munti aw ñu gis la di nga wàññi ndax dofuñu fee neexul rax si dolli ku wax caméra de surveillance mën nga xalaat force de l'ordre parce que caméra de surveillance njëriñ li mu am mooy